mais woote bi dafa am solo lool lool lool si ñi ko woote parce que su mu juumul ay soxna la idée bi jóge ñooñu nag may fàttali ko ay yaasin buubu ay tratendeer jigéen ñi mësuñoo des gannaaw ci lii avancé Sénégal ci xeex yëpp nag ci fànn yëpp kon lii su jógee ci ay chroniqueur ci ay journaliste suñu xel day dal parce que journalistes yi Sénégal yi yëpp dañ leen diaboliser le monde de la presse Sénégal yi bët bi ñu xoolee mooy bët boo xam ne nii dañoo démissionné seen rôle kon tey nag ay chroniqueurs suñu wooyee ci liggéeyu réew mi ci défendre la démocratie ci défendre loo xam ne nii sont des acquis démocratique kenn nit di Macky Sall bëgg ñoo jaay doole bëgg fee toog pour l'éternité ay journalistes yi jóg taxaw ne dañ ciy bay seen waar ñooñu dañ leen di sant dañ leen di gërëm di leen wax ne feet ngeen feete ngeen ca askan wi feete ngeen seeni doom te feete ngeen seen i sët te l'histoire retiendra que ne Macky Sall bi muy def lii ñenn ci journal si réew mi taxaw nañ ne ko lii duñ ci euh, duñ ko nangu du ci dal di wax rek jaay doole googu man ci nguuru Macky Sall laa gis ay journalistes yu jàppale te sëñ saalu Guèye mii daf ñoo fekk rëbës ñu nag moom mu dund ko ak dignité nag ñu tooñ ko jaay ko doole. suñ ñaan danga ko mastaw dañu wax nañu li ngi ni xeex moom laay xeex politique indiwuma fi te su ma génnaatoon damay def li ma li ma def ba indi ma fii honorable Guy Marius Sagna ñaata mandat dépp la am te loolu lépp si jaay doole rek la di wax rek gis nga Albert Camus dafa waxoon lu am solo ci benn article mu tuddee ko manifest di journaliste libre mu ne le rôle du journaliste doit être animé par un esprit rebelle et insoumis gis nga journaliste man damaa jàppale comme ab prophète la moom moo war a guider le peuple di ko jox des informations vrai et justes man damaa jàpp ni ñii nii tey jii ñoom képp la Sénégal am ci journaliste man moom laa gëm parce que ñoo ko wane Sénégal instant bi heure yi muy dund dafa bokk ci histoire mu nekk heure yi sombre ci histoire ñu war ko bind nag te yàlla xam na ne yàlla xam na ne képp ku jógul wax Macky Sall lii nga bëgg ta nekk man damaa jàpp ne complice nga parce que fii lu ñu fiy équilibré amul lii jaay doole képp la parce que benn waay lañ fal durant 12 ans moom en personne bi mu soxlaa wàññi mandaam wër def le tour du monde fu mu dem ne sept ans lañ ma fal mais damay def cinq ans sept ans lañ def cinq cinq ans na ko man de yow laa ma si gis si àddina ñu fal la mandat bien déterminé nga da nga koy wàññi mais bi mu ko bëggee wàññi wala bi mu ko bëggee yokk fan la dem. conseil na la dem parce que moom mooy sart nday réew mi conseil constitutionnel ko munoo wàññi ay at liñ la fal dañ koy respecté sept ans lañ la fal sept ans ngay toog est ce que jaar na assemblée nationale kon tey jii su bëggee jaar assemblée nationale def loo xam ne nii moom mooy la gardien wala soi-disant gardien de la constitution parce que man Macky Sall fu dama koy considéré au passé Macky Sall ne fait pas ne fait ne plus partie de l'histoire dañ ko wax dëgg gi Macky Sall actuellement ne là où je moom ci boom spectateur waroon doon dafa waroon seetaan ay élection procédure électorale wàllum élection yoo dem nekku ci conseil constitutionnel moom mooy déterminer ay élection conseil constitutionnel tànn na ne candidat yi ñooy dem Macky Sall yoonam wuri cee nekk dafa waroon seetaan xaar la 2 avril mu def passation képp ku yàlla dogal ne ma moo war a nekk président de la République Macky Sall dafa war a dafa nangu ndogal googu parce que lu Senghor deful Abdou Diouf defu ko Abdoulaye def ko Abdoulaye defu ko Macky Sall ñu bëgg koo def ñu bëgg a noppi croiser les bras naan yàlla baax na man damaa jàpp ñun ay complice lañu kon damaa bëgg askanu senegal yéen lay waxal Macky Sall tooñul politique yi Macky Sall tooñul journaliste yi Macky Sall Sénégal la tooñ dans son ensemble may wax góor jigéen mag ndaw heure bii campagne électorale la ñu woon fekk honorable député temps may mën a bësa waru ñoon toog fii heure bii di wax lu jëm ci wàllum ay élection bokk naag bokkul dàq nañ ko wala lii dañoo war a nekk si terrain bi kon damay wax yéen Sénégalais yi campagne ngeen nekk constitution moo leen ko permettre ajjuma dañuy def campagne électorale dañuy descendre sur le terrain dañuy joxe suñu flyer parce que ñun ay candidats lañu dañoo nekk si ay coalition Macky Sall li mu bëgg mënta nekk te lii su jàllee nañ xam ne dafay toog pour l'éternité 2035 kii président Sonko wax dana toog lu ëpp loolu parce que kii buur la buur la bëgg a jàppee boppam li may wax nag mooy damay gàcc nga xam ne journaliste yi te ñun yàlla xam ne duñ ci deltu ginnaaw suñ ñu wooyee dañuy ñëw. suñ ko déggee dañuy ñëw te incha allah bi la vendredi le vendredi ñun Macky dana ñu fekk si biir terrain bi soit ñu jàpp yóbbuwaat ñi kaso ñu nekk fa boobu suñu jaan wàcc soit aussi liñ bëgg moom mu nekk mooy élection yi am d'ici le 2 avril parce que Macky Sall amatul légitimité kon maa ngi jégalu di nuyu nag sama mbokki détenu yi parce que quoi qu'on puisse dire rek naqaru lu muy métti Sénégal yi ñoom la gën a métti parce que man mii di wax ak yéen le 25 avril man mii di wax ak yéen le 25 février su fekkoon rëbës dama naan ci ay génn su ngeen xoolee barki démb keroog bi mag Sall waxee ne annulé na élection yi lu tax mu am mutinerie biir rëbës mooy déception bi ñu am dañoo jaaxle te xoolal bi mutinerie bi amee diinaa presque une semaine ñu coupé avec le reste du pays kenn xamu si ñoom dara du woote téléphone du visite du dara ñu aaye leen sa kuur te ñuy jaar rëbës xam nañ si Saliou Guèye mii wala Guy Martin xam na xam na cour nan lay def ci ci nii 9 heures nga war a génn wala 15 heures nga war a génn ñoo xañ la ko presque une semaine na lu génnoo ak kaso ni mu kaso rëbës ni mu xeeñee ni tàngee ñu téye fa nit diirant une semaine na ko doo génn te ñëpp xam nañu benn douche mooy am ci rëbës ci néegi mag yëpp 9 10 3 4 yëpp benn douche fa am. imagine métti woowu kenn moo leen ko teg Macky Sall moo ñu ko teg ñu ne léegi léegi dañuy dem dialogue damay renvoyer élection pour lan pour def dialogue pour amnistie ñun détenu politique ak leur famille day détenu politique tey suba lañ jóg lañ wax ñun ñaanuñ dialogue ñaanuñ amnistie Macky Sall moo leen jàpp moo leen tooñ jàpp leen tëggu góoyam la na muy def ba na leen na leen génnee mais ñaanuñ dialogue ñaanuñ amnistie nous voulons des élections libres et transparentes inclusives mënutuñ ko wax parce que am na ay candidat yoo xam ne moom moo leen tànn am na ay candidat yoo xam ne ni da leen rëcc rëcc googu muy rëcc na fekkee ci la bëgg a jóg jaar prox ndoll pour dàq yi duñ ko def duñ ko nangu Macky Sall ñoo bañ ci li nga bëgg ça ne passera pas maa ngi sant ñëpp ñaa ngeen jëf. di la jaajëfal bu baax Diop Taïf ndax kàddoom yi tamit am na solo ndax ñi nga xamante ne ñoo di détenu politique yi. Euh,